après nga après Coupe d'Afrique 2019 dama 2021 lañu Coupe d'Afrique il y aura des joueurs qui sont un peu vieillissants sûr ne renouveler pour les xalé chance bi am moins de 17 moins de 20 23 Si ma def coupe du monde wala nangam ñi ci nga gis ñi jël relève gaaw jël 4 5 6 personnes ñun am nañ ko les jeunes là bu di sélection damaa gis benn jeune benn luppi xaw ma c'est le luppi de Je ma ne lii de bu ko defee man maay njëkk a taxaw ma tàccu muy risque bi mu jël un jour, c'est vrai qu'il joue pas en deuxième division troisième division waaye gisuma milieu terrain yi ko commandé. gisuma j'ai même appris qu'il a signé le jeune là il a signé la semaine dernière xaw a fait maintenant? tant mieux pour lui c'est c'est il y a beaucoup de bons jours des jeunes ici il faut pas que nous minimiser le championnat moom moomu ci boppam sax Aliou daana minimiser championnat bi parce que maa ngi fàttali ko à l'époque ba ci ay Ousmane Sarr ak ñooñu daanaa wax ne leen muy surveiller bàyyi xel booy yi booy yi booy yi na ne peut-être Ben Boy amu fi woon talent mais booy da ngay football championnat même pas deux mois que nga ñoom Ousmane Sarr dem ñu convoqué leen kon dafa meloon ne après man damay wax mooy peut-être benn côté li siwri doon wax rek à chaque fois on a affaire avec un entraîneur apprenti sous estime wu ko woon de mais dafa bëgg a wax nit ñi ne Aliou

c'est est juste que des fois bu ñu gisee benn jeune buy propulsé wu am nañ droit ñu ne booy bii c' est de demain mooy tey mënuñu am coupe du monde coupe du monde la booy yi def moins de vingt ans il faut le faire mu ñëw benn booy lañ ci gis mu Moussa Ndiaye mu jël ko te y' a beaucoup de talents là-dedans heure bi waroon na fekk mu def relève gis nga nee naan léegi nag coupe d'Afrique amatul deux mille vingt et un deux mille vingt deux la kon na la leer ne di nga footballaat deux championnats ak ren gi muy trois championnats fan la équipe am bii di ko footballé duñ football duñ ko fi fekk. Mais il faut il faut pas il faut que il faut que nous jéem propulser en avant jël suñu jeunes yi nga xam ne ces jeunes locaux là wala ces jeunes yi nga xam ne qui ñu ngi bitim réew mu teelee na Ankara dugal leen équipe nationale. boo bàyyee des des des des des des des plus âgés comme les Sadio Mané Gueye on est d'accord Koulibaly mais ñu ci des nga xamal leen ne aujourd'hui temps où relève dafa jot et puis jeex

nek fi di bari ay sélection wala di bari ay nombre de coupe d'Afrique té jëloo coupe jëloo dal amul benn Il y a des jeunes yo xamante ils ont soif man dama équipe nationale bi Sénégal bi lenn kessé xañ na yalla di xaré tant que amul benn jàppason boo xamante ni tu vas prendre des pros prendre des locaux yo xamante ni parce que lolu ñun ñëpp jaar nañ ci bis moy football ak un local da ngay dem ba yow sa wala ba à l'entraînement yow yaay dem ba wax né waroo fi lu ñak fayda parce que t'es un professionnel parce que boo ko wane loolu benn la ko ñëw di doxal lu leer mu wóor la kon di nga dem ba yow boo duggee si biir nekk di nga am leen looy xalaat donc loolu tant que amul ci sélection mais ñi fi jël coupe d'Afrique yëpp seet ko ñi fi jël coupe d'Afrique yëpp ci bii ñu ngi football Europe moitié ñu ngi football seen dëkk ñun kese ngay gis fii doo gis kenn chaque fois bu nu sélectionné benn góol góol la ñuy sélectionné góol mooy représenté football Sénégal mais fan lañ jëm bii nationaux yi c'est bien ñu mën a ñu mën a dëgg dëgg dëgg waroon football bi Sénégal bu nu mënoon football dëgg sama sëñ dañuy football France gis nga kaw Evra bi li mu souligné la dernière fois aujourd'hui chacun nga juddoo France nga juddoo Sénégal ci bokk allez chercher la le pays de vos ancêtres tey jii dama wax bu nu li na waroon njëkk a ci football moi. je ne suis pas raciste loin de raciste mais c'est juste que ku ci nekk top. xam nga yàlla bu muy sàkk dafa sàkk lu weex sàkk lu ñuul sàkk lu marron sàkk lu jaune ku ci nekk waroon naa toog tey ci sa waxuma couleur mais nga tok ci say origine nga dem football say origine tay ay Evra yi bu ñu ci sen origine yému mu dégg ni tey ba diko dénoncer à la télé du ko wax du ko wax français yi ils sont pas contents bu ñu ay nit ñu tout le temps sen équipe nan wax dëgg légui boy yi nga xamné ne football en équipe de France ils vont jouer la petite catégorie bu dé dee nga xam ne mënuñu percer ils vont venir jouer dans l'équipe nationale Sénégal bu ko defee ñun suñu lu koy toog fii duñu mëna ñëw équipe nationale man te lool lay wax man j'ai contre à ça ñun ñii ñëpp kenn mësul xëccu ne da ngay football équipe de France

qu'il pouvait jouer pour l'équipe nationale espagnole. Yalla, yalla, gis le wane gis ne ça fait 2-3 ans booy bi propulsé ñew na Lyon du moy ki Lyon gis que Lyon il n'a pas trop progressé il n'a pas trop progressé Abalé nañ en Espagne il n'a pas trop progressé Légui moom moy bay way na je vais essayer d'aller sur mes origines mais tay nga dem sélectionner un joueur comme ça mais nga sélectionner Pape Aliou Ndiaye moo te au moins il a rendu des trucs au euh, Sénégal tey gis nga Aliou Boy, booy yi mu bàyyi ay Pape Alioune Ndiaye ils sont pas trop vieux par rapport ay yeneen joueurs yi mën nga leen xëccaat ci équipe bi quand ils ont mal des fois match amicaux yi dina tax mu relancer en équipe nationale parce que amoo benn compétition boo joué match amicaux ngay jouer. donc ces joueurs là ay CV C'est des grands c' est des grands joueurs nga jëli leen pour ñu ñëw encore beesaat xanaa xamoon ma wax la benn affaire bu ngeen xamoon à chaque fois un joueur bu jég bu nekk international bis bu ko convoqué club même bu joué club dañ koy respecté parce que club bu dara club bi dafa am indemnité yu muy laal chaque jour bu amee sélection ba pare teg ci dañuy ragal un international pas ragal mais dañuy respecté un international bu xasee ba nek un international dañ lay laale droit parce que day wax né international club club dëkk boo mën nek nak motax mané lolu ali loolu Aliou war na cee mën dimbali yenn boy ba nga xamné ne boy am difficulté sen club yo ñu sen match amicaux yi fay am jot mëna a sen parce que pour sélectionner un joueur da nga koy gis mu joué ci club ta pas besoin nga dem di di ko woo pour mu ñëw mais ki nga xam ne wul kooku wo ko pour mu ñëw en équipe nationale parce que ñëw fi pour changer un système ñëw fi pour jouer ben système bu bess da nga ñëw pour rien que rek pour ñi nga xamné ne dañu am difficulté sen club nga mën leen relancer encore sen club jox leen gëdd tout ñu ñëw te gis nga match équipe nationale tay boo xolé El Hadj du club am la taal wala nangam Sénégal la taal ba tey ñu mën a tudd El Hadj donc équipe nationale dafa bokkul ak dara équipe nationale ni la def club def nii ci gannaaw ci suufam kon tey yenn joueurs yi am difficulté mu dem sélectionner pour ñu relancer c'est très important dans des circonstances comme ça